na génn na génn na génn na génn nous ñëw na ñëw na ñëw bon ñooñu nii am nañu la nekk Demba Touré. ñooñu nii ak Demba Touré. ñu dox ñu dox ñu bañ ko bloqué ñu ñëw gars yi ñu ñëw ah ñu dox ci kanam. ñu dox ak mi ngi nii xale baa ngi nii ñibbisi na rek. waaw ñëwoon micro ñëwoon micro xale baa ngi nii ñibbisi na rek xale bu jaaxal état toog ci télé di leen jox xam-xam gars yi di ko jaay doole ñibbisi na xale bi ñibbisi na nag a article yi borom droit yi. waaw frère ndaw an waa jot na nekk yow la. jërëjëf Mbappé Mbappé namu naa la amna la yeah. Diop tey woo naa la bu sonn man la moom moo woo naa la bu sonn envoyé la message waaw après naa la envoyé message Aujourd'hui, HLM Grand Yoff mooy accueilli son leader mi ngi noonu Ngagne Ngagne Demba Ngagne ngi nii ku doon wax lu moom ku doon wax ci lu ñaaw mi ngi nii ñibbisi Ah, sama jigéen bi sama jigéen bi kontaan nañu jërëjëf Gande ba jërëjëf kontaan nañu jërëjëf Gande ba jërëjëf kontaan nañu Gande ba jërëjëf kontaan nañu jërëjëf doomu dem jël ni bis bi kontaan nañu jërëjëf bagay tebu la doomu ba dem jël ni bis bi kontaan nañu à 2024 président kila Mbappe anawatayo paka kadua kulandanani kutanani kapakalmo kejambela koy xool donc di leen parce que yaa ngi noonu di wane seen bopp wane seen bopp finalement yaa ngi noonu yaa ngi nekk jënd jërëjëf Ndefleng jërëjëf kontaan nañu. surprise générale. Ndefleng sama waay namm naa la Thank you. gaa yaa ngi jibile lii Macky Sall sa du ko musa am Maître dem ba Touré lu mu am nii Macky Sall sa du ko musa am bu amee fit na wàcc ci mbedd bi xool kenn du ko faale xanaa mu fay xale yi de waaye Maître Ngagne Demba Touré lu mu am nii Macky Sall sa bu wàccee du ko am ci mbedd bi na ko def na xool Ay,

ñëw leen chers internautes yéen ko gisandoo ma ne li metti Ngagne Demba am ni Macky Sall mënu ko am xanaa mu fay xale yi wala mu fay population bi ñu ñu mun a korom lii naturel jàpp doomu réew mi di leen toroxal di leen jaay doole metti ngañ Demba Touré woo leen ci débat di teg ay article di teg ay loi yu leer di jël xale bi yóbbu ko Saraya bu continuer ci émission yi gars yi ne doo fi waxee xale bi moo ñibbi si léegi Amina ngi nii nag Amina ngi nii la grande patriote waaw waaw waaw waaw. élection par force. Cara, dañu ron léegi non gars yi dañuy xaar bu ñu dugg jël sa ay junne rek jël côté marché grand bi noonu boo mooy dina am xam naa léegi ko wax léegi ngeen dégg rek comme tey lu ñu defoon yëmbal ñoo fekk gars yi ah nan nan nga ñëwaat ah ñi ñoo des.

gaynde gu ndaw gaa ngoogu le jëm naa ma bii sax. Sonko la ñu bëgg Sonko la ñu bëgg Sonko avancé avancé avancé waaw génn waaw waaw waaw Eh, am ndànk ndànk wala